demal demal demal na ñëpp yéeg. loolu ñëpp yéeg ñëpp yéeg. barke Faas barke Tiwaawan barke Cheikh El Hadj Malick barke Cheikh ñu ngi foto yi ba léegi. ah waxuma la man de yaay imam